man ku ma woo ci baay ma wuy si la allah ya allah Barameen TV yéen yéen a woonu baay allah ya allah. alhamdulillah.

di def tawassul ci sang bu tedd bi Maulana Cheikh al Islam El ibrahim Ibrahima di ziyaare sunu khalifa Cheikh mohammed Mahi ibrahim Niass di ko tek ci loxo sunu serigne Cheikh Baye Lamine di imam al fayda Tijani waaye di ziyaare itamin le porte parole de la fayda Cheikh mohammed Mahi Ibrahima alin sisse Nous avons le représentant du Khalif, le président international de Ansaruddin muy borom gàmmu Cheikh Mohamedou Lamine Ibrahima Niass Nous avons ñu ngi jël de nuyoo ak Nous avons di ko tekki seen loxo di ñaan te ak yal na ko yàlla def ñu ngi nuyu ah, ki nga xam ne tey mooy borom jotaay bi muy le président Moubarak Cheikh Moubarak nuy nañ la ziyaare nañ la rafetlu nañu initiative bi ñu ngi nuyu suñu doomu sëriñ Cheikh Baye Mahi ñu ngi nuyu sunu doomu sëriñ Cheikh Baye Nazir ñu leen di nuyu mankat jotaay bi dafa rëy te diis ci man lool ndax ñi ma seq ah Baye nag moo toll noonu Baye dafa baax baaxle Baye dafa baax baaxle baax ci ay taalibeem ba nga xam ne su ma toogee fii tey di ñemee yëkkati kàddu ci seen kanam ci yërmande yàlla ji la rek ak seen baax yal na leen yàlla fay maa ngi nuyu sama frère sama xarit ah Amadou Samb yow moom dañoo bokk lépp yow tamit euh, defe naa wax entrepreneuriat ci sa kanam lu lu lu lu jafe la ndax conférence bi ñu def Kaolack euh, ci jigéen ñi les femmes de la fayda ba ñu yegsee ci domaine entrepreneuriat yaa ñu ko defal te lag ñu waxoon ñu nga ca topp bunt yaa nga ubbi woon it ñu nga ca ba tey jazakallahu xeyran maa ngi nuyu sama doom Alfousseni ziyaare naa ko bu baax borom wan Africa nuyu naa ko ziyaare naa ko nuyu sama sëriñ Seyda Umu Xayri Baaba Lamin maa ngi ko seen fële maa ngi ziyaare sa baay di ziyaare sa maam Oustaz Barham Diop ci yow maa ngi leen di ziyaare ñoom ñëpp di ziyaare Seyda Zara di ko wax ne ko añ yi neex na macha allah fa tabarakallah ku lim nag dana am loo bàyyi waye dama bëggoon ngeen jéggal ma rek ma taxaw fofu ci lim bi di remercier nak DJ yi nga xam ma sha allah seen taxaway rafet na surtout nak waye Dibor mom itam bàyyeewu la ko contane nañ ci mom lool alhamdullilah rabbil alamin serigne bi man damay wax sama parcours ci entrepreneuriat dama dem marché tiaroy ndugg bay wagne ma ngi ci taxi bi ma deg oustaz Barham Diop di waxtan mu ne bàyyi mu ne boo amee projet bul ne damay bàyyi ba mën yépp soog a def mu ne fi sa doole am rek tàmbalil mu ne yàllaay mottali ma xëy suba di ci waxtaan ak sama borom kër daanaka gëmuma ndax yaakaar na ne daal ba tey xale laa te itam am naa leneen rôle boo xam ne bu dul liggéey ma waxtaan cee xaritam mu yëkkati cinquante mille di ma seetlu lebal ma ko ma jël 50 000 yi loué ci benn machine à 7 500 de ci benn magasin à 30 000 rue 31 angle 18 fële ca Medina ma jënd ciseaux 1000 francs de table 3 000 jënd naa jënd de dese 1 200 daal dem marché HLM jël fa benn tailleur bi may dem 600 la fay passe 600 retour 50 000 billets. ma indi tailleur bi mu ñëw commencé di ñaw ah yàlla mi dara tëwul quatre mois après tabaski jaar fi ma jënd sama machine bopp à deux cent mille foofu laa démarré samay activité gannaaw gi ma am ñaar gannaaw gi ma am ñett gannaaw gi ma am ñeent gannaaw gi ma am juróom gannaaw gi ma am juróom ben ba gannaaw gi may ñaw di yóbbu ci sous région bi ñaw yooyu di dem ci sous région yi boo demee jëndaaleel ma nàngam soo demee jëndaaleel ma lii soo demee jëndaaleel ma lii ci ay produit ak ay saaboo ak ay diw ah benn bés ma dugg ci benn magasin boo xam ne foofa ci Côte d'Ivoire benn taalibe bàyyi la moom ba tey maa ngi dugg fekk photo yi fees ma nuyanteeg moom am lu ma ko laaj mu ne ma dafa manqué waaye am naa ci 16 grammes mun naa la ko jaay mu ne waaye yéen Sénégalais yi dangeen ngeen bëgg diw boobu te baaxul dafa am hydroquinone day yàq yaram ma ne ko man de xaw ma dañ ma yóbbante rek ndax njëgu 20 mi rek laa ci soxla woon mu ma déedéet déedéet kaay ma woon la beneen loolu dinaa la jaay li nga soxla waaye kaay ma woon la beneen boo xam ne produit naturel la li xeesal bi yàq dina ko defar dina tax ba nit ki dana fa jaare sax dootul xeesal dina dindi tache yi dina dindi picc bi te dina defar yaramam te dootul euh, dotul yàqu Li ma jënd ci njëgu fanweeri junne ñëw yàlla dimbale mañ ku mos rek ne ma kañ ngay dellu ma delluwaat jënd njëgu huit cent mille hmm? dellu siwaat ne ko ah dama soxla kat njëgu deux millions bi yoon mu ne ma ah kañ dem ma yóbbu la usine ba won la ki koy defar ay ay bari gom la tek ay ay ay diwi kokoom mak ay kariteem mak ay euh, huile de de de de de kii seen diwu naturel yoy mom la yoré di défar mu boole ma ak moom. waaja jaay ma jëm si woon mooy euh, liggéey dafa and ak confiance dama jënd valeur 2 millions mu lebal ma valeur 1 million 150 mille te lebu bi ma xoolee facture bi ma ne ko ëpp na mu ne ma déedéet yóbbul boo jaayee nga fay ma te mu ngi may soog a gis ki ma àndoon wu présenté ma ko tiit ma ne ko bul bul jàq dina baax mu ne ma mu ne ma defal ki barke baay ma ne ko bàyyi dinañu dimbale dama daan peese bagages yi par avion muy ñëw ki ma jaay bagages yi ëlbatiku ne ma danaa la won Euh, circuit boo xam ne euh, groupage lay doon dina sa bagage dina ñëw dans 15 jours te doo fay lu cher donc produit bi gën a wàcc su daan jar ñaari junne ci marché bi léegi mun na jar junneeg ñetti téeméer wala junneeg ñeenti téeméer kon xanaa gën na chuté te ndax frais yi teggeeku na ci bi ñu ñëwee marhaban <laughs> sama seex yegsi na Matar Ñang ba bi ñu ñëwee ba 15 jours après bagage bi agsi effectivement 15 jours après ma compté xaalisam yónnee ko ko ci comptam téléphoné ko ne ko jox ma sa numéro compte mu jox ma comptam ma jox ko ko mu ne ma bul ñëwati loo soxlaati dee ma oo xam nga bu fekkoon ne dóor naa ko ca njëlbéen ga ne sama voyage bii de neex na waa ji xaw ma mosumaa gis ki ma booleek moom xaw ma mosumaa gis kon fa la liggéey ba di yem waaye liggéey dafa ànd ak conviction bëgg li ngay def waaye boole ko ak sellal ko ak njub lépp loo xam ne bokk ci rekk nga bañ ko cee boole ñu ngi euh, sant yàlla bu baax ci loolu ndax bokk na ci sunu réalisation yi nga xam ne tey réalisé nañ ko sunu partenariat kooku moo ko ubbi ba ubbi yeneen i partenariat ubbi yeneen ubbi yeneen ubbi yeneen ba nëgë tey jii ñu nekk ci entrepreneuriat ba di ci créer ay réseau di ci euh, organiser ay jigéen di leen jàppale ay milliers de femmes yoo xam ne tey ñu ngi leen di encadrer di leen defal ay formation di leen dimbale ci euh, euh, ay crédit crédit yoo xam ne crédit banque lay doon wala crédit euh, yoo xam ne ñoom ñoo koy dajaleel seen bopp di ci partager di liggéey di toj seen i kees di répartir ay millions tey ci seen biir te dara waralu ko lu dul jóg ak liggéey jigéen nag ak entrepreneuriat la ma waxoon américain bi rek daf ma ne yéen euh, musulman yi lislaam daf leen daf leen daf leen doyadal parce que nanguwul sax ngeen nek imam yeen jigen. ba nopi yow nak nga mune nek chef d'entreprise don yaay di yar jur domi di len yar nek muqaddam ba euh yoré ay groupement lool nak la mën a mané ma ne ko benn l'islam doyadaluñu l'islam dafa sagal jigen dafa suturaal jigéen dafa dimbali jigéen ndax ana imaam imaam a ngay matu mu nga ca maternité ba ana imaam dafa am ngànt julliwul ñetti fan yi loolu moo tax jigéen mën da nekk imaam bokk na ci ponk yooyu doomam a fanaan ak feebar bii moom la xëy yóbbu hôpital kooku dafa am beneen mission boo xam ne borom bi subhanahu wa taala fonk na ko fonk goo xam ne li am ni bakkanu doomu aadama jigéen la yàlla fonk ba dénk ko ko kon ñu xam ne rôle yu jigéen lu am importance ma ne ko bu fekkee ne nag dañu ne lii nga ma wax ni yépp maa ngi ko dajale di ko def nga xam ne euh, jigéen ñépp ay muqaddam lañ lan mooy muqaddam muqaddam mooy yarkat ku juddu ci jigéen nga jaar kon jigéen lay jaar tette meewu jigéen say fan yu njëkk moom ngay dunde xalaatam xolam bu yërmande moo lay tette ba nga mun a àgg ci yenn mission yi ba mun a doon nit kon jigéen ñépp ay muqaddam lañ jigéen ñépp ay opératrice économie lañ ndax jigéen ngay jox tey kayitu junne mu togg ci añ togg ci reer defar la ci ndékki taal cuuraay pale keur gi jënd ci omo menace defar lepp bala ngay ñew sax fekk xalé bi ne dama bëgg watu mu jox ko 200 ne ko demal watu ñi kon jigen ni kon jigen ñepp ay opératrice économie lay ñun dañu judduwaale ak loolu yalla daf ñu moñalé ak loolu maa ngi gërëm nag euh, euh, wa bayñes bi nga xam wakiin mi nga xam ne ñoo organiser organisation bi sëriñ bi man damay wax ne jotaay bi war na mën a nekk waaye nañu defaat aussi beneen jotaay boo xam ne li may wax gaa yaa ngi ni toog ay intellectuel lañ te liggéeykat lañ ci faydu bi ñu def benn plan stratégie pour pays bi bare ngeen lu ngeen fi jooytu mais li ñu war a li ñu jooytu yépp nañ ko tënk ci ay këyit ba pare utal ko yoon woo xam ne kenn ku ci ne dangay am ne lii mooy sa mission ñu jox la ko bàyyee la ko nga liggéey parce que ñun ay taalibe lañ te bëgguñu lu dul pay bi man exemple bi may joxe du ma fi jóge te jooytuwuma ko sima u Medina bàyyi keroog bi ñu waxee ne sima cimetière yi mur bi daanu na maa ngi ko dégg xaaju guddi ci benn groupe WhatsApp 4 heures du matin ma départ utali Medina. bi ñu ñëwee bi ma gisee situation yi damay jooy bi may envoyé audio bi ci groupe bi ma ko dégg déggee woon di leen wax li ma gis xol bu jeex boobu ndekete ñoom jël nañ ko paasante ko jàllale ko mu daj àdduna moo tabax tey cimetière yi cimetière yooyu tey am na problème dafa dafay inondé day taa ndox yi dafay fees tege benn place te nawet bi ñëwaat na daaw yóbbu nañ ay expert ñu seet ko ba expertiser ko bene war nañu ko defar waa am na partie yu ñu war a sëkk am na aussi rigole yu ñu war a gas ca gannaaw pour ndox mi mun a wàcc di jàll di dem ci tuyau ONAS bi te yàlla dimbali nañu tuyau ONAS bi tamit tuyau ndox tuyau ndoxu taw la loolu yi tamit beneen xéewal la boo xam ne yàlla defal nañu ko mu sës ci rek kon yooyu lañ bëgg tey taalibe yi sëriñ bi ñu ngi koy jooytu ngeen jàppale ñu ci ñu fexe defar situation yooyu ñun ñëpp ay entrepreneur lañ kenn ku nekk boo dugalee sa loxo ci sa poos ñu seet kenn wóolu ko nag teg ko ci loxoom ne ko demal nga jàpp ci loolu bu ko defee loolu dina mun a aboutir ñu ngi koy euh, yëgal ñëpp nag di baalu ñëpp àq Eh, waaye nag daf ñu concerné ku fa sa yaay tëddul sa maam a fa tëdd walla am na koo xam ku fa tëdd wala sa baay wala keneen ak keneen ak keneen ñun ñëpp am nañ fa situation yoo xam ne mu nga fa nekk te war nañoo régler problème boobu ndax nawet bi ñëw na. maa ngi jékkalu nag wax ji bari na gudd na di baalu ñëpp àq di leen gërëm di leen sant ci parrainage bi nga xam ne parrainel nga ma ko parrainel ngeen ma jotaay bi. Ah, wax dëgg yàlla rëy na lool ci man yal na yàlla barkeel ah, di leen wax ne pare nañu tamit wax dëgg yàlla lu ngeen nekk rek ñu jàppalante ci ak yenn ànd ci ci barke Baye barke Cheikh barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen baal ñu àq asalaamaaleykum wa rahmatullah